mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax mu ñu may sago ak fekkeek mën a teew di nuyu ñëpp di leen ziar àllarba june 21h ni ñu koy tàmm di defee ak Omar bun Khattab Gueye ñu ànd ak yéen seen émission focus tey jii ñu dalal jaata ndaw jaata ndaw euh, doon coordonnateur Mimi 2024 fële ca commune bu Thiomby bokk ci coalition jomaay président jaata ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax. yi. ginnaaw ba nuyoo suñu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan fii ak si bitim réew. Mhm. di nuyu waa commune di Thiomby. Mhm. di am kontaan bu baax a baax si tey. di ñu tey. Mhm. c'est bon euh, invité si waxtaan mi nga xam ne moom la ñu war a lal waxtaan ak Charles si jàpp di ñaan waxtaan nag xel ñëw dal ñëw muy njëriñ pour Sénégal incha allah. di gërëm bu baax Fallou El Hadj Modou Abdou Top Ablaye ñu jàppale ci régie bi. ñu fas yéene door waxtaan wi ak jaata euh, ndaw ci leneen laa la xamoon mais di la dégg ci Mimi 2024 lan moo la booleeg Mimi Touré ak lan mooy sa choix ak Mimi Touré pourquoi nga tànn ko. waaw Omar bun Khattab. parce que damay gis ci réseau yi Mimi rek ngay publier Mimi Touré lan la. waa xam nga question bi moom boo ko laajee Sénégal yi ñu seetaan. Mhm. ñoom jox mën nañ si ko répondre mais comme man maa toog fi damay dimbale Sénégalais yéexuma ma xamal leen. Mhm. ñenn ñi. sama mandat Mimi Touré depuis c'est ça fait dix ans ñu ngi ànd. dix an dix ans dix ans man sama choix si politique Mimi Touré la. madame man bi ngay ànd ak moom mi ngi ànd ak Macky Sall. waaw man man ànd man xaw ma kenn man Mimi laa xam man madame la présidente Mimi laa xam. lu lu tax. présidente Mimi bu nekkee fenn falaa nekk bu fa nekkul nekkul fa ci lim nekk ci loolu la nekk du fa nekkul nekkul fa. ci loolu laa nekk man xam nga dama dafa moom dama ko xam bu baax a baax a baax xam yan qualité la am indi njëriñ Sénégal gis nga président Mimi Touré. Hmm. ku ko fréquenté. Hmm. Euh, da nga xam ne c'est une personne koo xam ne dafa am ay valeurs. Hmm. une personne ouverte. am vision am yenn si ñëpp léeg-léeg may dégg ñenn yi di wax naan Mimi dafa métti. si dafa métti si yenn yi nga xam yenn yenn ñàkk dox lu ñu rafetul yi. da su ma ànd ak moom dañ bokk ay qualité yu bëri maa moom man dama bëggul ku may def ay jeu. bëgguma ku gëmul dara man moo tax suñu mouvement suñu mouvement pour l' intégrité le milieu et l' indépendance ni da ngay intègre weex ñuul bleu loolu wóorut da ngay am constance si ngay def moo tax euh, sama ànd ak moom nekk loo xam ne depuis dix ans ñëpp xam ko te man sama image sax amatul fenn fu mu reflété toujours ànd ak mi mu turee yi passé présidentielle dama toog ñu campagne trois jours boobu j'étais la base. am kilifa gu mag woo ma. nekkoon si nekk si benn bokk yaakaar ne dafa bëgg mu recevoir ma jox ma ay moyens ma bàyyi ko ma ne ko man sama image man. dépassé na ñu ma siy jënd dépassé na ñu commencé élection trois jours may xelaat leneen man sama vision kenn la muy Mimi Touré milliards mënul tax ma change de si côté yooyu côté yooyu. am na yoo xam ne Omar ibn Khattab boo bokkee si famille gor famille nit ñu diñ mooy la famille Diago ndaw mooy Diago ndaw mooy sunu maam kon Diago dafa nekkoon koo xam ne di jàmbaar am ay doom am ay sët sëtaat sëtaat ñu ñu bokk ci suñu image ñun bokk si trahison wala wor wala ñu lay jënd pour ñu jaay si image moo tax man Mimi Touré je suis très à l'aise avec madame la présidente Aminata Touré si mouvement bi ko jàppale. waaw léegi Mimi 2024 ngay ànd ak moom mais des fois yéen politique yi des fois bari na ci ñoom ñoo xam ne dañuy waxe noonu comme ni ngay waxee nii jox nañ ma temps te loo xam ne kenn mënu ci indi preuve quoi <laughs> kenn mënu wax ni ni c'est juste rek pour être important pour waa ji gën laa fonk ak yooyu wala Mimi gën laa fonk est-ce yooyu rek moo tax ñu wax. xam lii maa ngi ko soog a ah, lii maa ngi ko soog tey. man sama ma mutuelle suñu suñu suñu relation dafa dépassé stade boobu noonu. Hmm. dafa am gëm dama gëm ne yàlla moo moom. Hmm. yàlla ma yor moo may teral. Hmm. moo may teg diggante loolu sama gëm-gëm la te nit mënu ma si jëlee. mu ne dafa am ànd bu ñu ànd ànd ngor ànd nawle ànd pour am fuñ jëm pour un Sénégal meilleur. waxuma ko pour leneen ndax am Touré man la président Aminata Touré. xam ne bu baax kan mooy jaata ndaw. jaata la ko xam ne bu baax kan mooy madame la présidente Aminata Touré ñun foofu noonu romb nañ léegi fal nañ ko mu doon koo xam ne day doxal ay yitte njiitu réew mi. ñu gis euh, Mimi Touré ñu fal ko ko fal googu am ñu ne Mimi ëpp na loolu. xam nga souvent Séné ñenn sénégalais y' pas tous les sénégalais pour dire vrai am na ñoo xam ne ñoom chaque instant nañ jaxase rek quoi yenn sénégalais yi. Mhm. si suñu nekk dans l'opposition ñoom seen ñoo nekk si dañ leen a gagné. léegi mhm. ñoo ñooy génn di wax mais ñu nekk dans la coalition Diomaye président ànd ak Diomaye président président la Diomaye kenn waxut ñun ñu nekk ak moom dañ ko apprécier. Mhm. ndax liñ ko jox dama jàppee loolu la yàlla tuddagum si moom. Mhm. te liñ ko jox xam nañ ne mun na ko doxal te dina ko doxal si kàttan suñu borom. lan mooy mission mission mooy mission bi dafa yaatu. tey bu ne nee au représentant du président de la République njiitu réew mi war a dem bu fa demul nga ñëw taxawal fa. yaa fay nekk njiitu réew bi loolu président bi ku fal xam na kat mooy Aminata Touré madame la présidente. te xam na ne loolu mu ko jox dana ko doxal ni mu waree ndax Mimi Touré nag kaay dee la li ñu ko mos a jox Sénégal yëpp. dafa ko façon transparente benn kenn mosu koo dégg si lu wër réew mi. foog naa ne ni Sénégal yi xam nañ ko tey mi bi lu waloon dërëmu réew Macky Sall jàll na ko fi mu jaaree yenn gars yi. Mhm. ñëpp nangu nañ ko si satam pour vous dire mission am dafa nekk loo xam ne liñ ko dénk dana ko doxal li mu waree pour intérêt sénégalais yi te loolu tamit du bett kenn ndax ñun ñu nekk moom lu tax ñu nekk moom tey bari na ndax ñun ñëpp jox si kenn sa reer ay conviction la ñu conviction conviction. conviction boo ko amee dara la impression daloo impressionné ñun dañu am conviction envers madame la présidente Aminata di ànd ak moom si liggéey bi gëm ko nag. ndax benn du la nax du la wax lu mu gëmut du la wax du la neex doo xam ne tamit du dëgg moom bu waree wax waaw danaan la waaw bu def déet danaan la déet. Mm-hmm. elle est comme ça mu indi boo xam ne sénégalais yi xam nañ ko mais nañ ko gën a xam. Mm-hmm. ku am yéene pour réew mi la ma waxaat ko di ko répéter à tout instant ndax kaay ma dal nag fi ñu jógee dafa nekk moment yu métti Macky Sall ba mu waxee day def troisième mandat même mm-hmm. sax waa benn dañ daan wax ay euh, deuxième quinquennat mm-hmm. di théoriser di dugg si ay dafa meeting mm-hmm. nan deuxième quinquennat moom mu taxaw ne temm ne du fi amee loolu yombul woon jamono yi noonu te bu ko neexoon fekkee teraanga donc moo tax muy mais day toog rangé wu foofu mais mu am gëm-gëm te man day ku ni man bu fa demoon di bugg teraanga. man damay génn moom li mu gëm loolu laa gëm gën na ne euh, image am amul njëkk Sénégal moo ñu mag ñun ñëpp Sénégal moo ñu njëriñ kon bu Sénégal taxawee day taxaw noonu la madame la présidente Aminata taxawee noonu lay doxee te Sénégal yi xam nañ loolu. mais euh, est-ce que Diatta Mimi Touré waroon ko wax mu bàyyi defante. waaw <laughs> ah, parce que. bi mu génnee ci mag yi dem ci Sonko ñu bari jaaxle nañ maanaam ni mu fi meloon ak Sonko. bay laaj carnet de visite am ca Sud Beauté jékki-jékki ñu mel ne mburoog soow lépp pour xeex Macky Sall maanaam la ci jublu woon pour xeex Macky Sall ko jaraloon na mu ànd ak Sonko mi mu àndalul woon beneen bi ci topp mooy assemblée nationale mu Touré jële ko postam ak ñàkk doon présidente assemblée jaraloon na ko mu ne assemblée bi juillet lañ koy tas maanaam moom eggoon na ci niveau bi mooy assemblée comme bokkuma rek na tas alors que tey jii. li conseil constitutionnel wax mooy le 12 incha allah dinañ ko tas yooyu yëpp ñu jàpp ni ay kàddu yu defante la woon ci diggante nga Macky Sall ba tax moom mi xam état mu mën a jàpp ni assemblée war na ko tas te waxtoom jotul est-ce que ko conseiller la bu baax ci Sonko ak Jomaay parce que la mu leen doon bu buñ ko defoon dañuy jalgati yoon. xam nga da nga njëkk wax defante. xam nga madame la présidente Aminata koo xam ku ne. xam ne. du bàyyi ñu koy maate. loolu nañ ko nangul moom. Mm-hmm. ñàkkul la heure bañ bu jotee day bañ. Mm-hmm. day bañ ni war a bañee. Mm-hmm. Macky Sall dañu doon ànd ànd nawle présidente Mimi Touré jàpp ne ni mu téye makki Sall la ko Macky Sall téye. mais or ko téye wu boo demee ba xam ne kii dina la téye téewu ko mais da am taxawaay. beneen bi mais taxawaay mooy lan. premier ministre ministre de la justice euh, euh, envoyé spécial xola jë jë def ko euh, la euh, li mu tudd candidate à l'élection législative maanaam li mu ko jox ci politique kenn mënul weesoog nit foofu. xam Macky Sall dafa nekk ministre xam Sall def na 12 ans bi. mu tudd 10 la fa moom 10 mais gis nga 10 ans yëpp daanaka mu ngi 3 ans la liggéey ak Macky da koy joxe loxo bee gaaw jëlaat. Mimi Touré ban post la am jox na ko ba jox ko conseil économique. bi ñu tas nii xoolal ban poste la Mimi Touré am un si nguur Macky Sall. ministère la justice premier ministre conseil économique yépp bu si amee onze mois bële daal moo si am benn quinze mois xaw ma quatorze mois conseil économique mais da koy tas te Macky Sall bu joxe Mimi mu ngi koy xool bët yoo xam ne li ma la jox yéenewu la ko kon boog kooku yaa xayti nañu xalaat ne yéenewul Mimi Touré madame la présidente jàmm yéenewul madame la présidente. ak li mu ko defal ak li mu ko defal yow. li ko gën a rëy ndax Mimi Touré xam nga ko Macky Sall dafa nekk opposant mu nekk cadre bu mag a mag aux Nations Unies. dem ay salaire yu extraordinaire madame la présidente Aminata Touré bàyyi salaire am yëpp avantage yëpp ñëw toog Sénégal pour jàppale président Macky Sall. mais réccu quoi loolu loolu loolu loolu maa ngi ñëw loolu lu ko gën a fort. Hmm. ngeen teg nag ay convention yu claires. Hmm. nañu ànd liggéey pour Sénégal muy dem ba ci biir ngay gis soppaliku. kon kooku da ngay xam ne li muy def baaxul amul njëriñ moo tax ba war a xeex jotee mu xeex ko mais yaa ngi dégg nga naan cas Sonko ay ay je sais pas gis nga élection bu jotee campagne. Hmm. bu campagne jotee euh, je pense que euh, dañu war a organiser wu communication yi ku ne di am noo organiser sa communication. mais hmm. boobu mag si mi lu wax météo boobu dañ doon def fay dañ doon tooñante rek mais c'est pas c'est pas méchant mais gis ba ñu war a ànd. ñu ngi ànd. mais lu tax Mimi Touré war a egg ci nantas assemblée bi juillet. waaw alors que moom poste poste poste député bi ñu ko xañ rek moo waral loolu quoi. non non ak poste présidence assemblée. xam nga man du ma nekkuma un homme de droit mais Mimi Touré nag bu fàtte ne dafa xam droit xam li muy wax. mais li mu wax droit waxul loolu. non ah. ñëw li droit bi 12 septembre la wax. li wax. Hmm. xëy na débat bu xóotoon. Hmm. am na ñoo xam sax dañu apprécier li mu wax am na ñoo xam ne apprécier wuñu ko mais loolu Sénégal ah. mais ah bi ñu demee ba fu mbaxane doone benn conseil constitutionnel le 12 lañ jàpp loolu. d' accord moo tax dans deux jours incha allah bi jeex tey le 10. Hmm. septembre <laughs> le 12 affaire bi jeex kon léegi wax na ki nga xam mooy njiit mooy jamaay ah li mu wax dégg na ko mais li ko yoon may def na ko léegi dugal na conseil constitutionnel mun na mun na ko tas assemblée bi. mais jaat lan moo xewoon ci diggante Macky Sall ak Mimi Touré ci ñàkk doon présidence assemblée nee nañ da ko diggoon joxu ko da ko war ceci ou cela. lan moo xewoon réellement. Macky Sall daal bu fekkee dëgg laa moo ko Sénégalais yi. Hmm. dafa trahi Mimi Touré dafa wor Mimi Touré. comment. man am naa chance le 12 septembre 2022 ba mu jotee man le 13 septembre 2022 Mimi Touré si man la njëkk si njëkk recevoir si laa bokk man mii. Hmm. chez elle këram toog nañ une heure temps ma toog waxtaan moom loo xam ne mënu ko si télévision loo xam ne góor du ko def. te nag si leeral Sénégalais yi Macky Sall la bokkoon ak Mimi Touré bu ko defoon problème du am mais lépp nag troisième mandat bi mooy problème <laughs> troisième mandat bi mooy problème mu Macky Sall ndax Macky Sall loolu la bëggoon. moo tax mu xam bu ko joxoon te assemblée bi. Hmm. mais bu ñëwee ba si day neewee problème ndax Mimi day am fu muy taxawee. Macky day bañ non Mimi li mu doon wax yëpp bu nekkoon président assemblée est-ce que dina ko wax. yàlla xam na ne connaissant madame Aminata Touré la présidente Aminata Touré connaissant cette une personne de valeur digne. très engagé, qui incarne des valeurs d'un bon ou bien d'une bonne sénégalaise li mu gëm loolu la gëm moo tax tey Macky Sall tey boo ko joxoon assemblée yaa ngi dégg ah. Mhm. dem ba ci biir mu naan ay deuxième quinquennat je day taxaw bañ te loolu dañuy ne ay crise institutionnelle moo tax. Mhm. jox ko mu turee tamit lu ko war taxaw na xeex troisième mandat bi xeex ko xeex bu am solo te nag kaay dee la. li mu xeex si troisième mandat bi ah yàlla xam na ne amul benn opposant ah, auparavant bu ko xeex troisième mandat bi ndax moom rek mu affiché woon kay ba del gis am na parti yoo xam na ah ku mel ni dama lañu tudd ah Khalifa Sall hmm. waa PDS hmm. Idriss Seck est-ce que mos nga dégg ñu wax si troisième mandat bi mosuñ ko wax c'était ils étaient des partenaires des part des vrais moo tax hmm. ba coowal assemblée Khalifa Sall. Khalifa Sall. Hmm. Idriss Seck waa PDS. ay vrai partenaire ay complice am la complice lañu woon Macky Sall. gis nga coowal assemblée bi ah, ba mu jógee ba ñu feesoo mu turee commencé def ay ay ay affaire am Macky Sall nag kii nag moo fi bàyyi mu problème mu daax ko mais amul notification. mais complice boobu ñu doonoon ak Macky Sall pour lan la woon pour bañ projet bi ñëw au pouvoir. pour pour gàllankoor Sonko ak Jomaay. pour élection du am Macky Sall mun a bokk gis élection bi ñu ko bàyyi ba décembre ah lay bokk ma xamul. élection yi bu ñu ko bàyyi ba décembre 15 ah, décembre la ñu waxoon ah. oui Macky lay bokk de. loolu Idi waa PDS. Karim Idi Idi il est complice. Karim est complice. Khalifa Sall est complice ak yeneen ñoo xam ne kenn xamul leen. c' est des complices même Bougane Gueye daan était complice si complice complice loolu ni finalement sénégalais yi nag lu ñu yàlla mais da jë gis nga loxo yàlla soo waay kenn mënu ko contrôler. kon ñooñu dañ doon wax opposition mais c'était pas des opposants non mais ils étaient tous Sénégal dafa ndaw c'est un petit pays c'est dëkk bu ndaw lañ yor te ñëpp a bokk presque Sénégal la ñuy waxtaan seen biir kon am na yoo xam ne bu amee man damay rus beneen moo tax gis nga ba Mimi Touré attaqué assemblée bi attaqué Macky Sall troisième mandat gars yi pousse ko amul benn lettre bu ñu ko notifié ne dàq na ne yow. ndax bu ko hmm. defoon mu teg leen si yoon mi ñoom dañ koo dàq di ko jaay doole mais doole yàlla rek mënul jeex sëñ bi jeexut. Hmm. jeex na fii amul lu dul jeex si àddina kon bu la yàlla dénkee doole su def la ko dénk day jeex. Hmm. kon bu la denkee dimbaleel ànd la nit ñi ànd ngoor say dëtt démb bu leen war Macky Sall moom booy seet ku mu dàq war Sénégal. bindal tey jëlal tey moom booy seet koo xam ne ku gën a bañee yenn Sénégal yi jàmm ndax man Macky Sall man j'étais dans la coalition benn bokk yaakaar ànd ak Mimi Touré mm-hmm. man mosuma bokk APR gëwuma APR lu laa yàgg wax man dama koy wax réunion yi sax man mm-hmm. du ma dem say réunion say réunion mais gis nga li mu def si trois ans yi si xeeti ñaawteef mm-hmm. nit ñi buñ ko doon comprendre sax day avant lool man je cas je prends le de mon grand frère Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao c'est mon grand la. c'est mon xam nga yoo xam ne. Hmm, lan nga ci mën a wax. imam hmm. dañ ko jënd fii terroriste. pendant quatre ans tey ko si kaso bi. loolu la ñu choqué la famille Ndao. Hmm. choqué jullit ñi. choqué nit ku baax ku ne. choqué sax laabe yi. koo xam ne nitu yàlla la ragal yàlla di jaamu yàlla. nga ko ñu terroriste tëj ko pendant quatre Mm-hmm. ne yow da nga koo toroxal mais toroxal da nga ko defar. Mm-hmm. Mame Alioune Badara dafa pare si lépp lu muy def si àddinaam. gaañ ko gaañ ay famem mm-hmm. loolu sénégalais yi duñ ko baal Macky Sall jamais au plus grand jamais. te la famille ndaw tamit duñ ko baal Macky Sall jamais au plus grand jamais dafa def loo xam ne jaay doole la ndax benn missionnaire nga tubaab bi bëgg nañ nga jàpp nga jàpp. téye doomu aadama toroxal ko pendant quatre ans génne ko defoo dara dem génne àddina war war est-ce que war ñu. mais loolu moom defoon def moom nag ba mu génnee jullit la moom day topp euh, moom dafa am ko xam ne dafa dafa am muy le prophète alayhi salaatu wasalaam la mhm. doxalee moom. Mhm. ba mu génne ne baal naa ko àq. comme baaloo ko àq nag. Mhm. mënuñ defaat dara lu dul nangu loolu mais tamit duñu ñu neex. ndax xëy moom fu mu toll. si taxawaayam ñun xëy na tollaguñ fa. mais jàppal ne Macky Sall moom ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais xoolal rek euh, Cheikh Omar euh, Omar bun Khattab dañu toog dix heures des élections en février deux mille vingt quatre dix heures mu génn le trois février ne na pousse yi mais loolu fan la ko teg indi problème yu rëy diggante boobu rek ren yi fa quatre personnes man manifestation de loolu est-ce neex na Sénégalais yi. lu metti nag dem assemblée ñu dem assemblée assemblée validé le 15 décembre xoolal loolu ñoom Abdou Mbow ñoom Khalifa ñoom Bart Bart li mu ci sa bokkoon il est complice Bart. Mm-hmm. Bart ca la bokkoon. Mm-hmm. ndax ña voté loi ba ñu ngi fi di seet ay seen matul matul un yàggut loolu c'était février kon yooyu comme matul un mm-hmm. matul sax huit mois. ñooñu sénégalais yi dañ war a bàyyi xel ni xam ñii nii bëgguñ Sénégal imagine toi yow nga voté loi ba xam ne day pousse élection ba 15 décembre 2024 te yow amoo droit yow. kon moo tax xoolal yàlla li mu ñëw tey la mairie ja jomaay boobu mu ngi prison. Ousmane Sonko nekk prison. yàlla na leen yéen a neex ñii lay jël yóbbu ko ñu toog si pale ba toxal réew mi. ku ci mën dara kenn ñu jël ku dul yàlla. moo tax gis nga Omar souvent dafa ay jeu am na jeu yoo xam naa ah, dalay da sonal da lay fatiguel ndax yaa ngi def ay pexe ay manœuvre ay fekk yàlla pare na bu yàgg. léegi manœuvre yooyu ak pexe yooyu jaata ndaw bokk ci coalition Mimi 2024. ca commune bu Thiom bi doon son coordinateur doon suñu gan ci émission focus. danoo gis ni après des mois au pouvoir quatre ou cinq mois dafa mel ne bu ñu doon wax l'ennemi est toujours la ñi jàkkaarloog ñoom di leen faxasal ak di leen faagaagal ba tey jii ñu ngi fiy taxaw. xam nga mais mu nanguwul may nguur gi mu déroulé ci lenn. pour yow lan moo waral loolu faiblesse su nguur gi la wala lan moo xew. parce que li nga wax nii ni ñoo ko fi def yëpp te gisaguñ kuñ jàpp gisaguñu kuñu yóbbu ci reddition des comptes mbir yi yéex loolu ba yenn Sénégalais yi commencé découragé. nguur gi mooy wane une certaine faiblesse wala qu'est-ce qui se passe parce que discours Mimi Touré moo gën a dëgër discours Sonko ak Diomaye lan moo xew. non non xam nga Ousmane Sonko. mooy naa moom bu doon Mimi moom mbiri leer na bu yàgg. non non non xam nga mbir moom. bu ñëwee da ngay tey. da ngay dal. xam li ngay def ba mu leer nañ nga déclenché ko woote bi déclenché rek te leerul sa bopp ba léegi mën indi problème moo tax ñi nekk fii di sonal nit ñi. xam ne dans deux jours jeex le 12 septembre. Mhm. c' est dans 24 heures. Mhm. léegi coow lu jeex. comment na lay jeexee te te nu woote kii bi nu mu tudd. déclaration de politique général bi le 13. Ousmane Sonko le premier Ousmane Sonko man dama ne man mos yoon du dem. léegi pourquoi Diomaye jàpp DPG bi le 13 pas xam nga benn instant de gars yi di dugal motion de censure di politique. Mhm. non xaw ma lu tax Diomaye dugal ko mais man dama ne jàpp acte politique la acte politique acte politique may Ousmane Sonko man du ma dem dajeek député yi nga xam ne ñoom ñoo pousse élection yi rey ay nit toroxal ay nit tëjlu ay nit gaañ ay nit final ay nit mooy député yi benn bokkaakaar yi waa bennoo yi ñoom surtout man quand je vois Abdou Mbow nekk si assemblée bi di sonn ñi daf may jaaxal benn sax xamul tax mhm. Abdou il n'a jamais gagné des élections à Thiès xam nga loolu ba. Abdou Mbow. mosul gagné élection Thiès waaw. Abdou Mbow mosul gagné élection à Thiès lan moo tax muy nekk chaque jour liste nationale nañ ko defal nañ ko def liste départementale mhm. yi di ñëw. nañ am départementale bi kon doon ko ci assemblée de Abdou Mbow heure bu demee liste départementale à Thiès du am dara mais chaque instant ñu koy indi list nationale. kaay mu del nag xam nga Macky Sall tas na Macky Sall ah. tas na bennoo. Dakar tas tas na bennoo. waaw. Euh, actuellement ñoom ñu ngi si link boo xam ne. Mhm. pour créer benn coalition boo xam ne li ma njort Macky Sall moo jiite coalition liste bi information laa jox nag. yi ñëw. Mhm. moo ko jiite loolu laa njort man. Mhm. tas na bennoo mu ngi créer beneen coalition. ak waa APR. Macky Sall mooy jiite liste bii di ñëw. Euh, élection législative yi di ñëw euh, après buy tasee buy tasee assemblée bi loolu laa njort man te loolu gën naa ne loolu la bu ñëwee dañ koy bàyyi ñu mu rey rek Macky Sall tey bu jëlee liste. dañ koy bàyyi rek ñu mu rey seen doom yi ñu mu toroxal seen doom yi ñu mu tëj seen doom yi ñooñu lay jàkkaarlool ñaata di quatre-vingt-dix personnes nga rey leen ñoom ay mbokk am ay waajur am ay lépp tëj presque ay. mille et quelques jeunes xaw ma deux mille. mais loi si jaar na fi. dañ koy abrogé gis loolu loolu. Hmm. man gëm naa ne bu ñu paree assemblée bi hmm. gars dañuy abrogé loi bi ndax loi bi moo taxul Macky Sall di patam patami Sénégalais yi di pousse élection bu dugal dugal loi bi yow ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom nga rey hmm. wax ne dañ laa baal. balewuñ nga tekki saa yi créé benn loi si ah jéggale. léegi nag ñu ngi ñaan le président Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar fay son premier ministre Diomaye bu tasee assemblée bi le 12 septembre 2024 ñu jàpp date élection yi wallaay bu ñu gañee élection yi mu ngi ñaan état bi ñu abrogé la loi d'amnistie ñu ko abrogé ñii rey ñu jàpp leen ñu toroxal ñu jàpp leen ñu tër jàpp leen Macky Sall bii kon du rëcc Macky Sall dañ ko war a jàpp indi ko Sénégal Macky Sall est un est un assassin je le dis haut et fort. Mm-hmm. ndax damaa fekkee gis yi mu def ñëpp Sénégal yi teg seen bët. Mm-hmm. man quand je vois une personne boo xam day defaan mag sax dama naa kii est-ce que gëm na est-ce que gëm na Sénégal. Mm-hmm. kon boog en général kon nañu réfléchir nu ñu tëggee élection yi gagner élection yi ak une majorité écrasante pourquoi pas sur sur les cent soixante cinq députés ñun ñu am cent cinquante députés loolu laa gëm gëm naa ne la coalition Diomaye président bu ñu organisé il peut avoir. comme en euh, fait cette coalition peut avoir 150 députés. mais mais ak ni opposition bi taxawee nii média yi. lépp jàkkaarloo ñoom coowal sëriñ ci mbiri Cheikh Omar Diagne yooyu yëpp nga nar dem élection ci condition yooyu li doon xaar ci reddition des comptes defagoo ko. bon. gars yi sàcc àll réew mi ñu ngi fi. mais ba tey ji kenn jàppagu ci kenn. xam nga sama introduction naa loolu noonu état bi ñu ngi ci te xam naa ne dañ ko déclenché ci kàttan suñu borom te loolu gëm naa ne dañ ko dóor mu daanu nañ tey rek ngi koy suivre fan yëpp ah Eh, maa ngi coow lu bari na loolu ah. Mhm. te ñun duñ Sénégal wu quoi franchement Cheikh Omar Diagne. Mhm. xaw ma ko à travers la télé laa xam. Mhm. miinuma ko. man je lui demande le profil bas quoi instant yi taluñ loolu suñu sëriñ si nañu leen bàyyil complètement ndax dafa am ay gëm-gëm yoo xam dañuy dañ ko am si ñoom dañuy dimbale te ba mu méttee ñoo taxaw. kon Cheikh Omar dañ lay demande ouvertement débat bi nga enterré ko loolu lañu ñaan mhm. bu ko mënut a enterré na président jël ay décision am li mooy force bu nekk ndax débat bi yóbbulu fenn Sénégal mhm. amuluñu njëriñ man li ma gëm gëm naa ko te li nga gëm ko kenn li nga gëm na ko mhm. nag bu mu tooñ yëkkati ko tuuti micro bi bu mu tooñ waaw c'est suñu maam jooju noonu histoire am buñ la koy wax boo nekkee nit doo si am benn xel ñaar sëñ maam El Hadj Malick noonu. Mhm. maam Baye Niass. Mhm. maam bu bu Kunta maam Limaamu Laay mën nañoo lim presque ay ténor yoo xam ne Sénégal ñoom ñoo dimbali Sénégal Sénégal ñu fi 2024 avant 2024 ñu fi nekkoon. mais ñi nga gis ñi xam coow li xam. coow li média yi yenn yi jàpp ni lii danoo war di jafal rek waru fee yem. xam nga fa média yoo xam ne euh, ay média yu doy waar lañu Sénégal te ju ñu du ñu amuñ chance du ñu du ñu. duñu duñu duñ mënuñu taal dëkk bi Cheikh Oumar Diagne mënut a taal dëkk bi mhm. xëy na mën na def ay erreur na wàcc média yooyu di jéem a taal dëkk bi nañ xam ne dëkk bi nit mënu ko taal ndax kën na fi métti élection 2000 fa la fekk mu fekk fi la mu fekk 2000 dëkk bi gënoon na jaxasoo lool élection 2012 yow fi la fekk fi la mu fekk mu gën a jaxasoo mu mais 2024 bi lu ko gënoon jaxasoo. mais journaliste yooyu ak yi bokkuñu de. non mais ñi ma gis journaliste yi am na yoo xam ne. Mhm. doo xam dañuy def journalisme doo xam doo xam lu ñu liggéey ñoom taal rek jaxase jaxase buñ ko buñ Omar buñ Dior Diatta am na problème rek jaxase leen xeex leen non loolu ñooy mais chaque jour là mais day jeex day ñëw gisa loxo yàlla dafa invisible kenn mënu ko gis kon lépp looy def si àddina sóoroon ne rek yàlla day ñëw ak loxoom. mais dañu indi jàmm si réew mais jaataay est-ce que y a des gens tapis dans l'ombre comme ni ko tubaab dee waxee ñu làqatu ci ginnaaw dara pour jafal réew mi parce que fan yee weesu ambulant yi mhm. gis nañ fi ñoom sayer ku ne jug yow nga jiite woon fii bokk ci ñi nekk ci secteur informel bi sa kuréel nu mu tudd rasmat rasmat waaw léegi lan moo xewoon réellement parce que boo jékki-jékki rek booy jugandoo xoolal lan moo xewoon réellement y a quelqu'un qui dit que est-ce que amul Macky Sall da leen joxoon vingt cinq millions nekkoon seen ginnaaw am na ñuy wax yooyu ah man yooyu yëpp rumeur yooyu yëpp dégg naa <laughs> mais yéen lan moo xewoon quoi. xam nga débat boobu sax moo sañoon tey ah mais du ma ci dugg mais dinaa la dimbali. tuuti non pour parler du secteur informel waaw secteur informel bi. parce que aussi secteur boobu mooy secteur bi gën a régorger ay sénégalais. c'est vrai te il faut nguur gi taxaw ci. xam nga dafa am benn dama am chance marché boobu noonu c'était le 9 août la ko gars yi jàppoon ñoo ko doon def. sama yenn camarades yi. seen droit la bi ñu man am naa si gis-gis suñu organisation ñun ñu toog waxtaan ci rajo. Mhm. ñu def si communiqué boo xam ne dafa def toole. Mhm. communiqué foo naa ne presse yu bëri am nañ ko. dañ ne marché bi ñu koy def ay certains acteurs yu encagoulés soutenus par cette en fait dafa leeroon soutenus par certains politiciens. Mhm. ñun boobu lañ dóor def ko benn communiqué tas ko si presse bi loolu nag <laughs> boobu déstabiliser leen. te loolu tamit xam naa lu gën a yàq marché boobu mais lu ñu doon waxoon dëgg la am na kenn ku toog si ñoom si benn télévision. Mhm. wax carrément avant la marche. kon ñu doon wax dëgg la. lu mu waxoon xaw ma jox nañ leen non xaw ma jox nañ leen vingt cinq millions xamuñ mais wóoru ah, ma. man rumeur yooyu dégg naa. ma wóoru ma man dégg naa la mais wóoru ma. xam am na ñu nekkoon seen ginnaaw daal. bien sûr mais gars yi duñ woon. xam ne lii y avait une coalition ou bien des coalitions de partis yoo xam ne ñu ngi nekkoon seen ginnaaw dañ pousse ñu fa nekkoon si mais comme que gars yi dañuy def yoo xam ne dañuy politique ñoom dañ dañuy opposé wu ce sont des opposants ña ko yor ay opposants lañu. ñi ko organisé ñoom ñëpp ay opposants lañu instant yi kenn mu si gis Diomaye ak Sonko ku si gis Diomaye ak Sonko da koy bëgg a lekk dañ leen a dañoo bañ Diomaye ak Sonko mm-hmm. loolu nag ki yàlla bëgg nga ne da nga koy bañ yow y' a problème. da ngay sonn kon da ngay sonn kon boog dañ def ndànk. xoolal def profil baa liggéey Sénégal ñu am jàmm fii kenn mënu fi daxati kenn politique xam nga politique moo jox politique jeu politique yu wax yuuxu politique def ay schéma sama classe man aw man euh, mon cher man pression aw dara ma xam loolu pression kenn mënu ma ko teg man dama zen mais les secteurs informels comment on va faire pour parce loolu nag problème la Sénégal amul nguur gu mës a ñëw régler ko man de ñun am nañ si xalaat boo xam ne yaatu na am nañ si xalaat bu yaatu mhm. ci loolu y a une organisation qui s'appelle la PASI mm -hmm. plateforme des associations du secteur informel oui. j'en fais partie de la coordination mhm. ñu ngi demander mhm. ouvertement à l'État du Sénégal mu recevoir la PASI mhm. di ko ñaan le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay di ko ñaan son premier ministre mu recevoir leen bu ñu recevoir on a mémorandum très bien organisé ñu orienté ko si li nga xam mooy mooy bëgg-bëgg euh, PACI bi am ndax organisation PACI bi dafa regroupé presque ay 35 organisations. du secteur informel 35 du secteur informel. 35 maanaam petite et moyenne entreprise yi. non 35 or 35 dafa 35 organisation kon loolu état bu lay recevoir bu recevoir PACI bi euh, dana ko dimbali mu orienté ko. Mm-hmm. def ko loo xam ne ëllëg bu si sukkandikoo. du ma ne dana jeex mais dana wàññeeku baax a baax a baax a mhm. baax kon loolu je pense que dama ko ñaan ouvertement kilifa réew mi mhm. président Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko mu mhm. recevoir la PACI ñu waxtaanee réew mi waxtaan ni ñu organiser secteur ndax li ñuy laalee fii si mbedd bi jaaduwut rafetut mais pexe amul nit ñi il faut ñu dund ku dundul quand même day métti si yow kon boobu bu ñu organiser nit ñi ñu waxtaan te ñu bàyyi tamit dégg pis foofu naa am na standby nañ ko arrêté waxtaan waxtaan mooy ni njëriñ ndax ku nekk doomi Sénégal ñu lay jaay doole mais xoolal temps yi ngay dégg si géej gi nit ñi di dee si géej gi dafa métti c'est choquant ñu si ëpp yu ngi nekk dans le secteur informel kon boobu ñu ngi invité état du Sénégal woote waxtaan mhm. ñu uuti ay solution danañu permettre ñu xool lu ñu def ba affaire bi changé incha allah rabbi waaw ñu ngi tiré vers la fin di fàttali ne ab baykat nga kañ nga kañ nga gët coom bi <laughs> waaw Kër Alpha man na man maa ngi dëkk village bi tudd Kër Alpha Kër Alpha Kër Alpha c'est un des de la commune intrant euh, jëm ci mbay mi par ak yeneen at yi waaw waaw ah, bi ah, ah, ak euh, Mabouba Diagne ak euh, mbay mi ren commune coom bi est que mi ngi taw normalement est-ce que xel xel mën naa dal ci première campagne agricole bu sonk Diomaye commune coom bi hmm. c'est boo xam ne sama commune de cœur hmm. doo ko bëgg sama xol est ce que nekkul da ngay politique. non non non non man nit ñi xam nañ ma xamul xam nañ est ce que du ay mbëkk quoi. Euh, hmm. hmm. yàlla moo ma yor. Hmm. loolu rek la yàlla ñu yor. ñëpp mooy yor ah. ah. mais dama gëm sama commune. ndax fi nga juddoo. mu dimbalal defar la. nga ràññee xamee ba am tuuti taxawaay. kooku mënoo ko man j'aime la commune de Thionville. beneen bi du ma euh, remercier monsieur le maire le maire actuel de la commune de Thiomby c' mhm. est maire la commune bi Thiomby di un ami un frère un confident. nit ku baax nit ku baax Alexandre Ngom. di sama grand frère. donc mhm. foog na lu wax naa ko fu ne. xam nag instant yi ay taxawaay si politique. Mhm. moom il est dans l' opposition. man juste dans le pouvoir mais sama nit la. sama mag la sama grand frère la. mais ci loolu dama koy invité waat. au niveau de la mairie ñam fa bàyyi ñu ngi koy yàqal lu bëri. defaluñ ko dara dimbaluñ ko si leen man maa ngi koy wax ouvertement devant les sénégalais ku am yéene la si communition bi mais ñam fa bàyyi dañ koy taral rek te loolu je pense que dañ koy fàttali xamal ko lool loolu mais waxuñ ko nag pour leneen benn bi intrant agricole yi. mais nous sommes Sénégal mais depuis combien d' années intrant agricole yi bu ñëwee day rupture. mais ren dans la commune de Thiomby dañu doon am quatre-vingt-dix tonnes ci côté gerte cette année nous avons cent quatre-vingt-dix-huit jiw wala. jiw waaw cent quatre-vingt-dix-huit tonnes ren. loolu est-ce que yomb na ren ñëpp am entrant yu doy bu engrais bi ñëwee noonu la demee engrais mboq engrais dugub engrais gerte baaxul doo bëri suuf de. non loolu xam nga souvent opposition bi ca am na ñoo xam ne opposition am ñoo xam ne doo def lu baax. mais boo demee tey commune Thiom bi. Hmm. ñoom ils sont très fiers du président de la République Diomaye. kon tey ren récolte yi mën nañu. te tamit mu ngi taw taw bu baax macha allah man ma fa jëm ça fait 15 jours mu jiwut. Hmm. yàggut kon commune Thiom bi li mu am ren xaw ma beneen commune ah, man maa ngi chiffre yi maa ngi lépp am naa chance boobu noonu. Hmm. commune Thiom bi lu mu am ren si xeetu intrant intrant mosu ko am kon lan moo taxoon presque indépendance ba tey lu xewoon. kon ñii kon seen vision ak seen yéene si Sénégalais yi nangu nañ ko kon communication bi am nañ yaakaar ne li ñu def si intrant yi ñu ngi wóolaat le président Diomaye a travers des emplois les fils de la communication bi yaa ngi manque d'emploi nañu dimbale pour xale yi mun a am dara beneen bi financement yi gars yi dégg la DER/FJ FONGIP ainsi de suite bi amul kenn koo xam ne ku mos a am ku si mos a bénéficié wu kon ñu ngi ñaan état du Sénégal tourner xool communition bi nu ñuy uti ay solution pour affaire change communication bi tamit am nañ problème mu ndox mhm. ndox mi bon lañ am foofu flexo boo fa nekk nag mhm. di fitnaal population de la commune de mhm. ndox bi dafa am xorom ndox bi doo ko naan jamais ndox bi baaxul te ndox robinet yi forage day coupé tout instant robinet am problème mu ndox kon boo communication bi lim ñàkk bëri na beneen bi facture yi au lieu bu nekk deux mois léegi ñu def ko un mois te mu cher lool te mètre cube bi 250 francs dafa cher kon donc ñu ngi naan état du Sénégal mu xelaat communication bi ni mu si jógee taxaw ba suñu problème yëpp bu mënta taxaw yëpp mu wàññi beneen bi euh, yoon yi baaxut boo demee si yenn village yi booy def si yenn village yi mhm. yoon bi dafa métti pour nga dugg si yenn village yi day métti instant yi fi nu mu tawee nii mhm. par exemple ngay dem cangaan ndangaan sàmb mhm. day métti day métti mais saa saara day métti booy dem suxub kër ku ba day métti ak village yooyu noonu kon ñu ngi ñaan état du Sénégal ñu réfléchir yan plan la ñuy teg pour changer euh, situation communication bi te je pense loolu noonu di communication bi amul santé santé boo xam ne adéquat la dafa adéquat pour dimbale population bi bu ñu feebaree faju population bu ñu feebaree baa ñoo faju dañuy sonn kon ñu ngi ñaan état du Sénégal mu xalaat lu mu gënee dimbale la commune de Thiomby si ay yu baree baree baree baree ba kon communication bi dafa bokk Sénégal am taxawaay bu baax nag si la coalition Diomaye président communication bi dañu votel dañu jàppale Diomaye président foo naa ne la fa am ren ñëpp la bett ñëpp la bett ñëpp la bett ndax benn moo fa nekkoon nekk buur ne di bu bu bu fa laa bokkoon mais ñun bañ jógee taxaw ànd ak booy passé fii ak yeneen ñu fa nekk dañoo taxaw liggéey bu am solo bu bett ñëpp kon boobu communication bi dafa bokk si ñu jàppale le projet euh, de la coalition Diomaye président kon boobu président la premier ministre ñu ngi lay invité solennellement nga bàyyi xel la communication bi à travers sa jeunesse puisque les jeunes souffrent là-bas. ils souffrent te bëgg lañu jàppale les femmes tamit ñu jàppale leen ndax euh, si loolu sax nous avons créé un collectif. un collectif qui s'appelle collectif pour la défense des intérêts de la communauté j'ai eu la chance d'être le coordonnateur mm-hmm. loolu nañ adresse nous avons adressé une lettre à monsieur Ousmane Sonko une demande d'audience pour mu recevoir le collectif pour la défense des intérêts de la communauté ñu jox ko suñu mémorandum bu ko joxee danañu dimbale beneen bi mm-hmm. euh, ci loolu ma tënk bàyyi ma tënk ah ñi ngi may def signe ah. waaw tënk euh, du ma te du ma nuyu sama benn rakk mu ngi tudd Noble Kébé Nobel Kébé un jeune très engagé am taxawaay lool région de Kaffrine Nobel Kébé xale boo xam ne dafa am taxawaay nangu nangoo liggéey kon ba kooku noonu dañ koy ñaanal yàlla bu baax yàlla dimbale ko kon waa Kaffrine seen doom ak noonu téye leen Nobel Kébé mu ànd ak la la en ànd ak la région de Kaffrine ngeen doxal ma tënk di la gërëm Omar. di la sant. Mhm. di sant waa Walfadjri. waa solution waa solution. TV waay TV. di kër goo xam ne sénégal Sénégalais xam nañ ko. di kontaan tamit di tamit remercier toute la population sénégalaise di sant tamit di kontaan si madame Aminata Touré. ni mu amee confiance si man dénk ma la commune de ñu ànd ci population bi kon madame la présidente je vous remercie au fond di ko di gërëm tamit les militants di gërëm tout le monde di kontaan tamit si taxawaay yi di wax monsieur le président Diomaye tasa assemblée bi le 12 septembre 2024 pour Sénégal bi ndax assemblée bi ñooy les assassins. ñooy les bandits ñooy les voyous les députés de benn bokk yaakaar képp koo xam ne nii da nga bokkoon si ñu pour élection yi bandi nga saay-saay nga wéyu nga kon na ko tax assemblée bi du mu gën a gaaw incha pour ñu indi assemblée boo xam ne dafa rupture assemblée jàmm bu indi Sénégal comme donc loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne mun ko ñàkk a yëkkati. baax na. jërëjëf Diatta Ndao bokk ci coalition Mimi 2024 ak coalition Diomaye Président nekkal leen ca commune bu Thiombien surtout Mimi 2024. di la gërëm bu baax di la sant euh, Fallou moo nekkoon ci machine bi ci régie bi Fallou Gumba la Omar Bun Xaataab Gueye euh, ci kàddu gi gërëm El Hadj Modou Abdou Toob ak Ablaye ñi doon jàpp ñëpp kon na euh, beneen àllarba incha allah ñu dellusiwaat ci solution TV ci beneen émission focus mbokk yi jërë ngeen jëf.